jërëjëf Limaamu Laay yow mi nu xalal lislaam xamal nu laaw bi saba Allah woo jotal sa woo teru yëpp ngay wax naan lu fiiru dina ñëw seet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mboolem auditeur ay Haïbou TV bi yëpp ñu mën a nekk ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara ñu ngi dellu si rek di waxtaan sang bu tedd bi Seydina Limaam Mahdi alayhi salaatu wa salaam so woote bu tedd bi nga xamante ne woote na ko muy batib ajibu da ilahi ya masaral insi wal jinni in rasulullah aleykum di ñëw rek di leen xamal ne sanga ba woote mu ngi yëg ci di wax baatam yu sell ya di wax baatam yu rëy ya na njiinoo njiinum yàlla jub na jiinal nañ ko juróom ñaari garal sa fajar yaati dikk nañu incha allah Seydina Limaamu la njiino njiino njiino njiino njiinum yàlla jub na jiiral nañ ko juróom ñaari gàllan ya sa yaati dikk nañu incha daal ne laa ilaha illallah Muhammadu laa laa ilaha illallah ñeenum yàlla jub na daal laa ilaha illallah Muhammadu laa ilaha illallah njéenam yàlla jub na ah mbokk yi daal di daw nag daal di ko ut si ñi naan limaamu dof na ñi ay waay xamoon na ne dina dof ndaxte dafa ñëweñ ak wéetaay ñii naa cey li métti na ku si nekk ak nooy commentaire Seydina Limaamu ne alayhi salaam daaj na muhammadu naw ma wa in xasa mamado fa kullama te saahibahu fa huwa xaribun say sanga bu tedd bi di wax baat boobu ci ay arab daaj muhammadu sam sa sumo se mamadou mamadou sam sa sumo se xattalaxa fil mahribi dégg nga sanga bu tedd bi baat yu yi nga xamante ne moom lay wax di ko wax sa wooteem bu rëy ba aa ah, ndeysaan mbokk yi ñii di jooy ñi tiisoo limaam mu ñu doon wax ne feebar na te ñi doon wax ne feebar ba mu ngi ko jëlee sa ba ndey ji génne àddina ba tey limaamu àndatula sagoom dafa dafa naboon te ndey ji dafa xoroon te ndey ji ndey jee nekkoon wéttalam yooyu yëpp ñu koy wax ndaxte booba dëgg dëgg dëgg xamaguñu li nga xamante ne moo nekk ci sang bu tedd bi sëy naa limaamu ne ajibo daayalaay يا معشر الإنس والجن إني رسول الله عليكم mu ne ajibo daye lay uy salan yoote bi yàlla bi yaa masaral insi yéen mboolem nit ñi wal jinne ak jinne yi ini rasula aleykum maa di seen ab yonanta aa mbir ma nag commencé bëgg a leer ci bopp nit ñi ñu kii de ak yonente lay woote kii de ak yonente lay woote waaw waaw ah, sanga bu tedd bi xam ne yàlla ko yónni ci mboolem nit ñi jinne yi mu saxoo baat ba rek ajibo dayalaay يا معشر الإنس والجن إني رسول الله عليكم xam nga wax jooju boo ko déggee kenn mësu kaa wax ni ma ko waxee ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad démb sa moo woote woon wootu boobu na ajibo da ilahi ya inti wal jinne ina rusula aleykum yàlla yónne na ma ci nit ak jinne maa seen maa la seen bi yonanto bu mas a woote yàlla si xeet ba nga feeñ sa la lay yónne sa woote sa lay waaye yonante bu xamante ne dafa oo mboolem nit ñi ak jinne yi kooku Seydina mu sallallahu alayhi wa sallam moo ko woote woon wax ko Seydina Limaamu moo ko tollantiwaat fii si Soodaan daal di wax wax jum waxe njuréy ji nga xamante ne wax na ko daal ne anna laa xad jaale ni ruuxu Muhammad fi gis mi bàyyi lay ne na laa naka yàlla xad jaala def na ruuxu Muhammad fi gis mi def na ñel na ruuxu Muhammad def ko sama yaram loolu nag nañ koy dégge ax naka ñenn ñuy firee bokkul anna laaha xat jaale ni ruuxu muhammad fi jismi ndaxte muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tax mu dib yonent ndaxte dund na ba am ñeent fukki at yàlla yónni ko xamal ne ab yonante la la yàlla sol ba mu amee ñeent fukki at ya taxawloo ko wooteeloo ko ba tax mu nekk yolente bi sa jamono jëkk ka yàlla sole sa la commencé am communication suñu borom foofu la bàyyi laay waxee alayhi salaam ne la yàlla soloon Muhammad ba tax mu dëb yolente ba tax mu nekk li mu doon loolu la yàlla yëkkatiwaat solaat makam la Imaam Mahdi alayhi salaam la ilaha illallah أن الأخ قد جالني روح fi gis جسمي baat bi loolu lay wund de la baat bi wund waaye doo ko firee ne yàlla jël na ruuxu Muhammad rek def suma yaram ndaxte loola li lay firil mooy Muhammad jëmm woon rek jëmm woon tudd Muhammad alayhi salaam waaye la tax mu woote la tax mu woote la tax yàlla yónni ko si ni tax jinne la ko yàlla sol ba tax mu gën ñëpp du xottu yaram wa la doxal la la ko taxa woote loola moo war moo mat a xam loola nag moo tax Muhammad gën ñëpp loola moo tax ba mu ko bëgg yàlla solee korog jooju la taxaw woote ur ute nit ña waaw ndaxte ci biir ñeent fukki at yëpp Muhammad nit la diira ba mu ganee àddina ba ba muy am ñeent fukki at Muhammad nit la waaye ba ko yàlla ba mu amee ñeent fukki at ba yàlla sol ko la mu koy sol wooteloo ko loolu mu ko sol nag loolu moo tax Mouhamed uute nit ñi foofu la bàyyi laa di waxe la yàlla soloon Mouhamed ba tax Mouhamed uute nit ñi loolu la yàlla dugalaat ci man mu uute nit nekkaat moom mudu la ilaha illallah loola fa la bàyyi laay waxee anna laaxa xat jaale nii inna allaha xat jaale nii ruuxu Mouhamed fi gis mi sala waxee ne arsalani kan bi yaay laay bàyyi laa ne yàlla yónni na ma na mu yónne woon yonante yi jiitu kama alamana kitaabalaahi mu xamal ma ay téeréem na ko xamale woon yonante yi jiitu yo wax dan wa rahmatan lil alamina si njub ak yërmande lil alamina jëm si mboolem bi ndef yëpp mun a ajiboo daa yalaay mu ne uy leen woote bi yàlla bi yàlla oone leen bu leen tënkam la woote bi yàlla bi ndaxte yàlla mooy yonni ci mboolem xeet bu nekk dina fa yonni ku fa oote waaye moomu du ma yónnoon moom ma yónnoon démb sa arab ya moom la dellu si yoon nekk fii si Soodaan mu ne ajiboo daa yalaay mu ne mu ne uy bi yàlla bi ana abdun mamurun bi tabrihi risalati rabbi waaw waaw ana abdun mamurun bi tabrihi risalati rabbi waaye wa amru bi yadillahi man yasaaw ajibo daaya laay bàyyi laay ne ab jaam laa bu yàlla digal ngir ma ooteel ko te woote booba kat dinaa ko woote yàlla nag mooy gëm la ku ko soob waaye mooy weddi la ku ko soob mbirum gëm ah mbiram ñàkk gëm nekk sumay may loxo wooteeloo rek la ma yàlla sante bu ma sañoon su may mbokk yëpp gëm waaye nag yàlla mooy dogal ko soob ajibo daa yàllaay ndaxte nag képp ku woote boo sañoon say mbokk yëpp dinañ la gëm ndaxte teraanga ju teraanga ju réy noonu ku ko am boo boo ko andee boo sañoon say mbokk yëpp seddu waaye yàlla day mooy seddaale ajibo daa ma ne ku woo aalam gépp ñu ñu ñuy joge kajoor ñuy joge bawol ñuy joge waalo ñi joge jolof fu nekk nit ñi dafa joge pëli pëli runga ajori runga fu nekk nit joge fa ñuy uy sa Seydina Limaamu ah dëkk ñu dëkk na mu soreyee ñi joge nayre ñi nga xamante ne ñu nga joge kel ñi jóge fu nekk sa àll ba di ñëw du uy sa bàyyi laay bàyyi laay du ote ooteem ba ñi nga xamante ne mu nga ñu nga jóge gànjool ku day ni tab sindike ponkalam yàlla ma wàllu yu yàlla wa jóge jóge jóge jóge gànjool bàyyi lépp lu ma amoon uy sa sëy naa limaamu tab si Abdoulaye jallo joge ndar ñoo uy sa sëy naa limaamu joge jóge waalo waala waala gàddaay ñëpp gàddaay ñoo uy sa sëy naa limaamu xam nga ne woote boobu du woote caaxaan te boobu lébu yi am nañu gëm am nañu weddi mun a ajiboo daaya laay kooku moom la yàlla yónni si mboolem ni tax jinne buñ ko weddee du tee muy moom buñ ko gëmee du tee muy moom waaye ab yonante la koy dëggal mooy weddi ga ajiboo daaya laay ne yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ba mu wootee ba tey am na ñu bari ñu nga xamante ne ba tey gëmuñu yonante bi tey jii lañ ko gën a weddi dégg ngeen ŋàññee ñu koy ŋàññ te booba ba ah léegi ay junni junni at la ala rawti nag yonante bi yàlla bi nga xamante bi mu wootee léegi téeméeri at la ak ñeent fukk benn kon weddi mënu see ñàkk ajibo daa yalaay ma ne ku weddi ndaw te juloo su ngeen la yow mu sànk la ki yolle yónni yoon yot mu jotoon bi ndef yo booba wàcce na ajiboo daa yàllaay ma ne xeet wu ñuul bu leen jomlu bu leen jombale seen bopp ab yonante yàlla yónnee ne leen ki gën si yonante yi ajiboo daa yàllaay yónnee ne leen muhammadu yónnee leen Isaa ibnu Mariyaama amatoonal aw lay ñëw leen gëm yonente tamit topp ko mooy seen sauvetage ajibo daa yalaay kon nag ñu teg foofu suñu baaram ba dellu siwaat ak gëliwaat fi ñu toll woon yàlla nañ si yàlla yóbbu si mu jug jamaana ji ñu toll ca Tektal ya tey mboolem gis nga Tektal ba